ku ne ma woon duñ ci defar lu bon ba pare di sinap seen bopp. billaay wallaay moo wedd ko. moo taxit may laaj. looy laaj. pourquoi di def lu bon ba pare bañ ko leen siiwal. daal loolu jaaxal na ma. continuer ci jëf gi ba pare di sinap seen bopp. pour lan. duñ ko si biir ma teg si nag gàtte ko seen téléphone. luy ndeyam. loolu moo ma jaaxal nag oustaz lii nan la ko mën a dalee sax. erreur la nday xale rek la xamul dara. mu ni. erreur la nday xale rek la xamul dara. lan xale. maire ku ne xam ne Camp Nou du terrain bu ndaw teewul ne recevoir na ancien joueur bu ne te bala nga koo gënoon a xam Beckham jël si woon wala Zidane dinañ la wax ne ne terrain Davies bi nekk sama ginnaaw fii moo ko mag kon boobu maire wax ñu luñ mën a dégg waaye ñun amuñu dara lu ñuy wax ndey xam nga ne li ko dal erreur rek la waa maire yow loo bokk ak Ndeye sax mu ni yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé kon maire yow yaay bàjjaloon Ndeye Ndiaye wa mom la <laughs> kon nekkate yo senegal am nañ gardio la <laughs> ah ndey Ndiaye yow looy ree xanaa li nga def jàppagu la affaire bi duma def dara ah lolou ngay wax rek parce que senegal mom bo beugé dem bu lijeenti ñuy wax quoi bëgg dem ba tangé sandra pain di découragé la sey bàjjan man découragé na sama àdduna bañ a lijjanti waxu ñun ñi bay gàcce say moroomu jigen man de dama rus xam nga nak li moy senegal da ngay def sa lu ñu wéng ba paré nga né mané ba paré nan erreur le luy ndeyam. nga def sa réaction ñu ne la ko. deug du romb nop est-ce que ku bëgg ñu suturaal ko dina def lu bon ba paré di filmer bopam xam nga li moy wane ni moy Sénégal dañoo mëna sétane seetaan. waaye ngay filmer sa bop moom. moy première weer sa bop man dal ba légui xawmu lutax jigen ñi mënu ñi xam ñom ñoy ñan. ay way jigen day xam boppam. bala nga ko gëna xam nag nga tok sa pooju ndey ba jëkkër fekk la fa. c'est ay kontaan. mais gone tey jii tegaate gàcce rek lañ fi nekkee. gone day am jom. fii la ñuy nekk di def lu bon bañ jàpp leen ñu naan. lan laa wax waa koñ lan laa wax fii ku suturaal sa bopp yàlla suturaal la ndaxte am na ñoo xam ne. chaque jour ñu def dérapage. te lu temps bi xat xat xat. dana ci ambiance. <laughs> buñ foog ne yàlla xamu ko de. te yàlla looy def xam ne ko. mais da ngeen suturaal seen bopp moo tax yàlla suturaal leen. dëgg du romb est-ce que tëddee wuñ ko. yow moo laa foo ne. teg si nag muy filmer boppam. kii dof pilis la. ah ñu ne nekk lu fi di nax njaboot. yàlla ak a mën a produire. capacité yëpp lay produire. waxuma ko góor ki moom di ni huit chevalier pétale bu ñu montel blon camion. mais yow bu ma reetaan loo ñu la laa reewal looy ree. moom ak jaaxal. te nag jëf jii Ndeye Ndiaye def am na jigéen ñu ko naqarlu. loolu dafa ñaaw nañ waxante deug dara mënu ko justifier. mais c'est bizarre. té nag koo si laaj ci ñom li Ndeye nga def noko ko li lii mooy doon réponse am. Pa Boy xana li leer na. ku ne xam na ni jigen ñepp xam nañ ne matul. mais bo amé jom am looy jom am looy bañ. kenn dula la ndax té am na lo xam ne. ku ko mos. fo jaar fitesu bala ay mos ak ay fétiche di am. wa cho cho cho pocco co pocco co wa foj ngeen tok sen poñu ndey ba goor gu bax ñoo fekk leen fa tak leen hmm? c'est ça assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man de li la wax mbaa ngeen loolu ngeen wax ah, man ñun lii nañu mën a wax ndooye jaaj bu ko defee nag ñu jox kuma bis mu ñëw ñaan rek ara ayta lazi yukazibu bidin <laughs> waaye ma dem xarab 3 ans buy conférence waay wala ya uddu ala ata min miskin <laughs>